Sunugal ñoo ngi fii ci HLM Las ci kër Imam Seydi fii nag euh, fii la li nga xamante ni moom mooy yeew wala dragon euh, wala leneen kenn xamul lan la fii la nekk ba tax na tey euh, kii di trompeur di lutteur nekk fii ci Géejawaay teew fii ngir indi soutien Euh, waaye euh, ginnaaw li nga xamante ni am na fii kii di maire ay Sow Diawara jëloon na famille bi yóbbu leen fi nga xamante ni moom mooy stade euh, Amadou Barry ci stade Jëmbe foofu la leen yóbboon imam bi moom dañ ko woon yóbboon Ravin donc mu am li ci xew yoo xamante ni tey trompeur bëgg na ci indi ay leeral moom lañu fas yéene àndal trompeur dama lay nuyu ñu soog a jàll ci waxtaan bi. waaw maa ngi sant di la gërëm di leen sant bu baax a baax a baax di di di gërëm quoi. alors euh, ginnaaw euh, yóbbu bi ñu yóbbu famille imam euh, stade imam moom ravin lañ ko yóbbu nga ni da nga ñaawlu lu ñu mel te ñu bëri dañ ko rafetlu lu tax nga wax ni da nga ñaawlu lu ñu mel. non vraiment loolu ñaawlu naa ko quoi parce que ñun ñu ñu jiite man damay damay jàpp ne sax pour man ñun daf ñu yàpp quoi dañu yàpp askan gi dañu yàpp tamit waa géejawaay parce que am na loo xam ne vraiment vraiment ñaaw na parce que ñoom pour man dama jàpp ne ñoom bu doon seen njaboot am lu bokk ci ñoom du ñu def loolu du ñu jël ay kilifa yóbbu ay xale yoo xam ne ñoom seen i morom doom lañ wala seeni i morom sët di leen yóbbu estat amul bari di leen bàyyi foofu di jël paa di ko yóbbu ravin loolu moom vraiment dafa ñaaw ravin baaxul ravin yow ñëpp xam nañ ne ravin caga la leen fay nit ñi di yóbbu caga ji lañ fa yóbbu donc euh, ci néeg yi nga xamante ni fa la ñuy dugal euh, jigéen ñooñu fa la ñuy yóbbu imam ci auberge yi lañ leen yóbbu néeg yi ñuy dugal jigéen ñi di def loo xam ne neexul yàlla fa lañ leen yóbbu te ñoom kenn du ci jël sa famille di ko yóbbu foofu loolu dafa ñaaw paa bi ñoom ñoom am nañ moyen ñoom lan lañ fi lan lañ leen fi bàyyee pour que sonn nga dimbali leen loolu loolu lañ leen fi tegee ñii dañu sonn au moins au moins laax bu doon ñoom seen famille wala ñu bokk ci ñoom duñ leen def lii lii mais euh, gis nañ ci yeneen ñi nga xam si ay doomu géejiwaay la yoo xam ne waroon nañ mën tey teew fii ku si mel ne Balla Gaye 2 euh, wala Lac de Guiers wala ki nga xamante ni moom mooy Malick Gakou euh, Aliou sàll ñoom ñëpp kenn déggu leen ci mbir mi yow lan ngay wax ci loolu noonu. no ñoom ñoom yow ñi nga lim ñëpp man damay jàpp ne ne ñoom duñu ay doomu géejiwaay gis nga doomu géejiwaay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñu géejiwaay lañ juddoo fi lañ yaroo gis nga xam la suñu bàyyi fi la am kër. doomu géejaay dëgg dëgg dëgg dara bu fi metti kenn day mel ni ne day mel ni maanaam dafay mel ni yow comme ça exemple dara bu mettee euh, kenn day mel ni yow la affaire bi dal ñoom ñëpp au moins waroon nañu ci mën a ñëw ñoom ñi ngay wax ñëpp am nañu moyen pour jàppale kii muy maire de la ville muy maire Sam Notaire muy Aïssatou Diawara ñoom ñëpp pour ñu jàppale kii comme ay seconde man xawma gars yi ñoom lépp dañ koy politiquer waaw mais euh, euh, Malick Gakou danañ ko gis ci ay euh, action yu mel nii yow bu amee mu def action maanaam mu indi li nga xamante ni moom mooy soutien mais bii yoon gisuñu ko ci est-ce que danga jàpp nii def ko amulul intérêt wala moment bi mu amee moom moo ko intéressé wul. non man xam naa ne Malick bu doon nekk na fi moom lañ fi njëkk a gis Malick Gakou nekk fi ñëpp gën nañu gis Malick dafa voyagé. ku fi nekkoon lu mu ci war a def lépp nañ ko def du question dara moom moo tax may wax loolu quoi Malick bu fi nekkoon lépp lu ci war nañ ko def Malick social social géejuwaay Malick Gakou moom lañ ko xamee. kon moom man du ma dara lu ma koy wax man muy Malick Gakou muy keneen kenn ñoom ñëpp laa yemale ku ci deful yoon dañuy taxaw wax la parce que ñun fi lañ dëkk fi lañ juddoo suñu amee lu ñuy mett ñun dañ koy wax du ñu am dara liñ ci ragal liñ ci góobee dañ koy gar lii dafa ñaaw. léegi yow lan ngay proposé lan nga bëgg ñu def ko wala yow lan nga bëgg lan nga bëgg def taxaw ki nga xamante ni moom mooy Imam Seydi. Imam Seydi leen rek laa ko bëgg ñoom ñëw nañ sama kër expliqué man leen man lépp lu ma mën dinaa ko ci def bu dee ñoom fii amuñu fu ñu nekk mën naa leen yóbbu jaxaay yi ci kër yi foofu ñu nekk fa ba fii ba lii deñ parce que lii rab la kii lu koy dindi du caaxaan. lii nii Seydina Mohamed laa lay waatal billaahi wallaahi taalaahi du ma waxantu am naa ñoo xam ne pour ñu dindi ko comme laa ju ñu leen ci ñaar fukk muy autorité muy euh, képp ku fi am mooy laaju ñu la dërëm soxla wuñ ci dërëm ñun duñu ay dóorkat ñu dañoo nekk géejaay lépp lu metti doomu géejaay ñu taxaw xar suñu tànk tubéy ba mu deñ waaw mais dama la dégg sa biir wax nga ni li nekk fii rab la te ñu bëri dañuy yeew la ñi neen dragon mais lan nga fan teg ne li nekk fii euh, rab la léegi man am naa fitu muy yeew muy ak lu mu mën doom man am naa fitam man man ma ñëw toog fii quoi man taxaw fii di wax loolu man xalaatuma ko sax man maa ngi sànkul sama bopp man xam naa ne rab la man affaire u rab bagage rab man xam naa ci ay bagage yu bari man xam naa quoi mhm. yàgg naa yàgg naa di dund lu bari quoi kon daal yow da nga jàpp ne lii euh, du loo xamante ni lu ay sapeur di dindi wala ay police affaire yooyu da nga jàpp ne ay ñaan lañ ci war a def pour mu jóge fi waaw non fii ay ñaan lañ fi war a def paa bi il faut mu génn gaa yi am fi presque ay 10 jours wala ay 15 jours def fay affaire affaire bi dañ lii danger wul quoi ay kii la rek ay ay ay rab la quoi. mais ñoo ñooñu nga wax ni mën nañ ko dindi eh, ñan la ñuy xaar pour pour dindi ko soit eh, accord famille bi la ñuy xaar wala lan lañ lan la ñuy xaar pour euh, mën a ñëw dindi li nga xamante ni moo nekk ci biir kër gi. non man démb laa ko yëg démb ba démb laa ko yëg démb laa ko yëg ko yëg rek euh, ma ñëw sama kër ñu ne ma am nañu fi ñëw di la seet expliqué ma ci laa ci laa bàyyi lépp la ma doon def ñëw parce que man ci yooyu laay dox. waaw lépp lu ma mën loo lu ma mën loo xam ne Guédiawaye moo ngi développé dama koy def ko ñi nañ di mën nañ dindi fii la ma ne ñooñu lan lañuy xaar pour ñëw dindi ko ndax accord famille bi la ñuy xaar wala accord keneen la ñuy xaar. ñooñu am jot naa woo téléphone tey man bu neexee yàlla bu ma fa demul tey suba fajar dinaa fa dem ma kër se loolu waaw lépp loo ci mën bu fekkee ñoom mënuñu nekk man mën naa leen yóbbu jaxaay këru jaxaay ñu nekk fa ba affaire yi saafaraw Euh, ñooñu di ko dindi ay lan lañ euh, ndax ay maanaam ci ban nan la ko mën a expliquer ban xeet la wala ban fex façon ñaan la ñuy def ndax ay tuur la ñuy def wala alxuraan la ñuy def wala lan la ñuy def pour mën fi jëlee li nga xamante ni moom mooy rab bi nga ni moom moo nekk fii. ñooñu ñooñu nondal nondal lañ rek quoi nondal wàllu rab moom mooy seen liggéey. wàllu rab mooy seen liggéey ñoom si fi nekkoon 24 heures ñu dindi ko. waaw non dañ fi doom seen i parce que loolu mooy seen liggéey quoi dëkk boobu boo fa demee euh, bu fekkee ñoom mënuñu wàllu rab dañ lay tegal ku ko man lépp fa nekk quoi du question yow dëgg xam nga nit mënul mën lépp mën nga leen mën nga am na li am na li nga mën am na leneen sa moroom mën quoi waaye bu dee fii dakaar dafa metti kenn moom mooy taxaw dëgër fitam ne mën na ko te mënu ko wàllu rab dafa am ñu ko man te ñooñu mën nañ ko loolu seen liggéey. waaw maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di sant waa géejuwaay yëpp waaw di sant suma yéen di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant waa kër gi di leen dimbali lii di leen ñaanal lii lii dal leen yàlla dimbali leen mu dañ quoi. Sunugal 24 point